moo tax tawat yooyu nag di ko xam di ko jéem a faj suñu kéem kattan bi ci am solo bala moo àgg ci martaw boo xam ne ñu naan waaw bu ñu bëggee faj loolu la ñuy ne xam na ni ndax dama lay wax dina alxuraan nga ne rek xadis yonent bi yaa ngi ne dama ndax a nekk ndax alxuraan bu fekkoon ne ab téere la boo xam ne nit dafa jàng gëstu ay gëstoom ba bind ab téere rek. ndax man bu ma àggul ci ñoom danaa mën a dem rek jël koy jëriñoo saa si man fi xam-xam bii nit kese kese gën ci néew ba mu àgg yow ma ca àggul mënoo dem mu ko jëriñoo ci rek sa aw néew kon alxuraan ak sunna mooy faj waaye nag fokk nga dem ci ku ko xam pour mu leeralal la nga mën a loolu moo waral ñuy soxla borom xam-xam yi ci ñu leeral la alxuraan li mu jublu wax loolu moo waral ñuy soxla seyxul murabbi ngir mu wan nag nan la ñuy jëfe li ñu la wax. lii kii dalee leer ne li leen wax kee leer na koy jëfee ndax nit ki mën naa xam ni iñaan baaxut mën naa xam ni rëy baaxut mën naa xam ni yéem sa bopp baaxut mën naa xam ni xeeb nit baaxut waaye fan lay jaar nag ba ñàkk ko def ndax dana ko yëg ci xolam fan lay fajoolee loolu moo waral cheikhul murab bi foofu lay amee njëriñ moom moo lay xamal ni ñuy dundee ak rëy moo lay xamal ni ñuy ak iñaan moo lay jaarale ci yoon woo xamante ni da nga woyofal sa bopp te dootu xeba ci kenn ceeb loolu moo waral ñu soxla borom xam-xam yi ci ñu leeral lan mooy alxuraan ñu soxla it seexul rab bi ci ñu wone nan lañ koy jafe waaye nag li tax mu jafe mooy seytaane yi dul bàyyi nit ki ci mu jaar ci yoon moo tax toujours day dox diggante nit ki ak sàkku xam-xam sëriñ bi neewal na bokk na ci pexe seytaane dox gum dox diggante nit ki ak sàkku xam-xam saa boo demee ba bëggatoo dégg xam-xam bu baax jubluwoo ko sàkku dara ñoratu la ci rek léegi bu baax seytaane am na ci yoon leer ndax si may jax day wax ni bu jëm ci yàlla lu bon bon bon ne yéene te jëf kam kàttanam léegi léegi ndax day gis ñu genn ko ku ab xolam bàyyi yéenew yow cëram ya ba jëf kenoom yee dem na mu des seytaane jàpp moo tax nit ki fu mu toll day yéene lu mu kan kat day jéem na waaye dem ba wàccalik moom moo moo ëpp def te seytaane dafa waatoon ci dafa waatoon ci tedd nga yàlla mu ko fa fa bi ni ko ginnaaw réeral nga ma nag danaa fexe bu yoon wu jub bu war a jëm si ci may bi maa ko toog ko waatoon ni léegi yoon wu jub yi nit war a jaar fu jëm ci yàlla ba nga fa topp kenn jaar ginnaaw bi mu ne ko summa la aatiyannahum min bayni aydihim wa min xalfihim wa an aymanihim wa an shimailihim wa laa tajidu aktharahum shakirin ne ko dinaa leen ñëwee ci kanam ñëwee leen ci gannaaw ñëwee leen li yor ñëwee leen càmm loolu borom xam-xam yi dañuy wax ni li joor ak càmm la muy tekki mooy wàllu càmmoñ bi mooy dana la jaarale ci mooy loolu yàlla wetu bi yéen mooy dana la jaarale ci fekk ngay jaamu yàlla mu yéem loola sa bopp nga jàpp ne amatoo borom rek soo ci ñoom ñoom sax seytaane li ko gën a ñor ci nit ki mooy ligne bi suñu borom rëdd bu mu fa jaar bu mu fa taxaw suñu borom dafa bëgg taxaw ci ak doom seytaane li ko ñor mooy bul taxaw ci ligne boobu da lay xëj téye laa doole pour nga bañ a doon boo xëccoo bu mënul ñàkk de mu bu ma wax da nga weesu léegi waaye doo taxaw ak manqué ba ci def bu ëppalee baax nga say teggin digganteeg xam-xam ba tey bokk na ci nga farlu ci xam-xam muy fab sa lépp jox ko xam-xam sa waxtu wépp nga jox ko ko bokk na ci teggin diggante nit ki ak xam-xam mu mu néewal ay nelaw ak bàyyi ak taayal ak gàttal ay mébétam ndax diir bi ngay sàkk xam-xam bu fekkee say mébét daa bari boo yàqee da nga bàyyi xam-xam bi dem wuti leen moo tax da gàttal say mébét lépp nga tënk ko ci bëgg xam bokk na ci teggin saako xam-xam ne na ngay ngay ñemee maru bëccëg ak ñàkk nelawi guddi mooy woor bëccëg bi ak foog guddi gi ak jamono bi ngay jàng it nga ànd ak nooy gu mat sëkk toroxlu ba booy jàng xam-xam doo toog ci kaw lal waaye ci suuf ngay toog ak sa itti jëpp nga jox ko ak waxtu wi bu jotee nga bañ koo bàyyi beneen heure maanaam heure bi saa bu jotee dem nga demal nga jàng sa heure jàng noonu la amee ay teggin sa digganteeg alxuraan alxuraan teggin yooyu dafa war sax bala nga ko laal na nga jàpp na nga fexe ba teewlu boo koy jàng na nga fexe boo ko mën a téye nga téye ko ci na nga fexe bul teg mukk alluwa wala këyit wu am mbind nga di ko ci kaw suuf di ko teg ci suuf ni fokk na wut foo ko teg loolu war ma joju teggin yooyu dañ bëgg ko ànd ak alxuraan te sëriñ bi lu ëpp ci ay mbindam saxal na ca ni li mu bëggoon moom yàlla may na ko ko njëkk mu fi jóge loolu lu jafe la ci àdduna nga ne ilaahi bi jaahil muntaqa xuttalil mun a ci daraja yonte bi li ma doon mébét lépp may nga ma ko kooku nag ku ko topp say mébét mi ngi ci biir loolu war ngaa mën a am say mébét ci kaw nag nga déglu ligne bi mu lay jaar wax ni la fii fii la jaar pour nga jaar fee ndax ba ci expérience yi borom xam-xam yi génn sax nga xam ne ñoom dañuy génne théorie rek nangam nangam nangam war naa maa nekk fokk nit moo koy tajriba moo ci def expérience di essayer di làmb ci làmb ba ba dara taxaw léegi sëriñ bi li muy jàngale fokk nit ki seet nu mu ko jéeme ndax saa boo ko jéemee lépp lu mu wax moo poto bii ngay jàkkaarloo ñaar da ngay da ci teg si bët moo tax léegi lanu dese mooy ñu góor góorgóorlu ci li mu ñuy digal ñu koy bàyyi xel di ko jéem a nattu te jàpp ni war naa mën te itte ju kaw yi li muy tekki mooy lu ne nga jàpp mën naa nekk lu ne nga jàpp mën naa nekk kon fokk ñu jéem a jëfee lim ñuy wax ngir ñu mën a defar suñu bopp première fois ak it jàllale defar gi ba mën a defaraale adduna bépp loolu li la Sëriñ Tuubaa bëggoon ci taalibeem bu ne Muhammad